na génn kër mbaa mu génnum réew ni bis bi ni mel looloo ñu teral waaye dina génn kër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 I said that jëwlu ñaa ngi noonu ci biir ah waaw siyaar nañ mbokk taalibe yëpp ñu ko siyaar nañ mbokk taalibe yëpp di ñaan rek xanaa ñu tàmbale ci bismillah te jeexal ci alhamdulilah lamp baal muridin waaw te ndeysaan macha allah waaw jeex na tàkk loolu féete na boor <laughs> ngi leen di bu wér de ko defee rek kon ni ngeen ko gisee rek tey ñu ngi fii ci rond point yu gàddaay CRBC safar bi nga xamante ni at mu jot ñu koy def ren tamit daal di doon li nga xamante ni mooy troisième édition muy safaru waa daayira CRBC bi nekk fii ci rond point yu macha allah. mu doon wàccaay wu am solo ndax nee la daanaka mën gis ne bi ci axlu bi nga xamante ni mooy axlu café bi gis nga ndab yi cin bool yi loo xam ne jëm na ci jumtukaay boo xamante ne rek war naa dugg. jëm ci bés bi rawatina ni ñu bendalee murid yi euh, gis nga ko daanaka ñoom taxawaay bi ñu ci am taxawaay bu mat sëkk ñuy ñaan rek ci dara jëye Cheikh Xadim suñu yaakaar sa borom may ñu fekkee ak daal te yàgg yàggal leen fee bàyyi ñu bay taxaw ndax nee naa ne jëfal suñu borom daanaka bay ah, gi moom rek ko xam rawatina na ñu dërëm bi nga nga xam ne boo ko lebalee ker naaj mu fay la ker te boo ko lebalee ker mu fay la guddi def naa ni kooku rek moo jara lebal kon macha allah jaajëfalaat bu baax a baax rek ñi nga xamante ne rek ñoo ngànk daayira bi ci jëwriñ yi sëñ Lamine ñëpp ñëpp jëwriñ ñëpp rek bu ma limee damay juum waaye ma tudd ci ñeen yàlla seen tur xam naa ko yéen a ngi ko gis noonu macha allah jëwriñ yaa ngi nii taxaw yaay faal yaa ngi noonu seen ginnaaw ñoom tamit macha allah lépp rek ci waajal bés bésu suba bi di la vingt cinq août di troisième édition safar bi nga xam ne mooy waa CRBC fii ci rond point Gàddaay bu Guédiawaye macha allah mi ngi noonu def xanaa man bëgguma yàlla ba tey rek gis nga ko ni ñu ko waxee woon léegi gis nga ko daayira bi nga xamante ni ñoo nekk fii ci biir CRC Banos ñii waaw sant yàlla bu baax sant waxee woon rek sànq ba léegi yéen a ngi gis oto yaa ngi ñëw kenn ku nekk ak ci wàllu wu mu fa ñi ngi ñëw macha allah di am yu ñuy indi mu jëm ci bés bi nga xamante ni rek mooy troisième édition safaru CRDC fii ci Géejawaay gàddaay macha allah di jaajëfalaat gars yëpp bu baax baax kenn ku ne rek ci lu mën a nekk ci lu mën a jàpp rek macha allah waaw ut seen tubaab nag amul ak Alaaji Lamin auzu billahi mina shaytani rajim bismillahi rahmani rahim allahumma salli ala sayyidina muhammad nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa sallama taslima auzu billahi bismillahi inna walillah jërëjëf borom Tuubaa Xaadimu Rasuul jërëw la maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baal Mouridina bokk internet yu Salam Vision comme ni ngeen ko gisee rek fi nga xamante ni tey ñëw nañ fi muy Géejawaay rond-point Gàddaay li koy sabab tam mooy safar gi nga xamante ni waa CRBC daayira bi fi nekk di daayira Cheikhul Xadim bu CRBC safar gi nga xam ne ñu ngi koy organiser ak mu jot ren doon troisième édition ñu koy waajal nii bët set la ci suba la ci ajuma bi incha allahu rabi taala waaye ñu jàkkaarloog suñu jëwriñ bëggoon na weccoon toog moom lenn ci ay kàddu mu wax ñu wàccaay ak yëngu-yëngu beeg li koy waral jëwriñ ñu ngi la ziar di la dalal jàmm ci biir jotaay bi macha allah rabi maa ngi leen salaamaaleykum wa rahmatullah damay wax ne alhamdulilahi rabil alamin sant yàlla bu baax sant yonent bi bi gërëm Cheikhul Khadim mm. suñu yaakaar tey ak ëllëg di gërëm mbokk yëpp waa CRBC BRT mhm. lii mooy troisième édition mhm. ñu koy feete kon nag ab yokkute la mhm. kon nag sant nañ ci yàlla bu baax ndax bañ ko njëkkee def ay ginaar lañ defoon ñu def deuxième édition am benn nag troisième édition ñu yeew ñaari nag kon ab yokkute la ñu sant ko Seexul Xadim bu baax a baax a baax di gërëm ñëpp di sant ñëpp képp koo xam ne sa euh, sa dërëm dugg na ci fu kaw ba ci suuf ñoo lay sant parce que nit ñi Euh, mën na wax xer gi ñu am ci Serigne Bamba. Mhm. ndax li may wax rek. Serigne Bamba mooy solution. faj ajo moo ci gaaw. Mhm. kon nag mbokki CRBC yëpp maa ngi leen di nuyu. Mhm. di leen jégalu ku fekkee maa am na. ci jiital bi ñu jiital. donte ne ñun ay euh, ndongo yu xeebu lañu. mais ñu tan ñu teg ñu ci kanam. kon am sant yàlla la. sant ko nag Cheikhul Khadim. ñoo koy sant bu baax. di ñaan nag ñu feete ko ay édition yu bëree bëri bëri bëri. jërëjëf nga fàttali ñu tur bi ak sant bi ndax da ciy bokk gaa yi xam ne kat jëwriñu daara ji mi ngi waaye donte moo jëwriñ ji liggéey bi ay pàcc pàcc la kenn ku ne nga jël ko dénkaat ko dara ci biir yëf yi ndax biñ ñëwee suñuy bët may nañu te wax dëgg yàlla du dootuñu ci jaayal nga fàttali ñu tur bi ak sant bi man Saliou Pouy laa tudd jëwriñ Saliou Pouy ñu gën maa xam ci Baye Sall parce que wax ko wax ci Baye euh, ci ci ci entreprise bi Baye lañ may woowee mm-hmm. ma doon laborantin kon section labo laa nekk mm-hmm. liggéey bi may liggéey foo fi au niveau de TRBC. macha allah euh, laborantin la. Hmm. mu doon lu am solo. naka ngeen waajalee bés bi ndax wax nga ko. def ngeen ko daaw jéeg def ko daaw ren di troisième édition ñuy ñaan yàlla fekkeewaat yeneen yeneen édition ak yeneen édition. te ni ko waxee tàmbalee ci ginnaaw. Mhm. ñëw ci nag ba ren ngeen def ñaari nag ñoo ngi ñaan bu déwénee ñu yeew fii ay nagat gi leen ba mu yaatu yaatu waaye wàccaay wi dañu gis organisation bu mucc ayib naka ngeen ko organiser. a day yomb si nekkee ne yéen a objectif yéen a bokk mm-hmm. bëgg-bëgg Cheikhul mm-hmm. Khadim kenn ku ne day jàpp ne moo ko fi nekkal mm-hmm. moo tax mu yomb man damay coordonné rek ma profité yi di ci gërëm samay jawrin ah jawrin Mamadou Lamine Faye Lamine Faye jawrin Mamadou Lamine Faye man koy ñaanal tawfeex ak tayseer parce que moom léppam boolewul ci wax day liggéeyal suñu Bamba rek to yàlla rek tax mën maa fàtte ki nga xam ne mooy sama bët ci sama tànk bi suñ seexu naa mhm. seexu naa sekk mooy dem mooy ñëw mhm. woor lool suñu amul milliard tey am nañ yéene denk ko ko ndax nit ko wóoru la mhm. mën maa fàtte ki nga xam ne mooy suñu euh, ku yoroo communication di suñ maam Góor Njaay lépp luy xasaayit lépp luy communication ci groupe bi moom moo ko yor ñoom it ñu doon ay jàmbaar yi fakk tëdd ñoom Ahmadou Thioune ñoom Cheikh Makendoy ñoom góor góor lañ jàpp ci mbir mi boobu ba tey soxna su koy faal nag place bi ñu nekk fi di ko fi defee moo ko moom maa ngi ñaan képp kuy murit nga ñaanal ko ndax ay xeewal lay defar pour taalibe Sëriñ Tuubaa yi te fu ñu ko waxee ne jógal rek mu jóg moo ko ñu mu àndal kon nag soxna su koy faal moom it dañ koy beral ngërëm di gërëm aussi suñu paree ren moom suñu xaadim ñang defal nañu teraanga suñu xaadim ñang ba nga xam ne moom Ageroute la bokk. defal ñu teraanga boobu ba tey. ndax dëgg yàlla gis nañu taxawaayam. di gërëm waa entreprise muy chinois yi muy waa CRBC. Mm-hmm. commencé ci directeur bi ba ñu mu àndal. Mm-hmm. parce que ñoom ñëpp ñoo ci dugal seen loxo. que gisee ñun fi mu ne a dem ak koy dañ fay dem. ndox courant lépp manqué wu ñu dara lépp ñooñu ko ñooñu koy jox di ñu jàppale. Mm-hmm. di ñu laaj à chaque instant fu ñu toll. lépp pour bés bi yem rek. kon nag wax dëgg yàlla CRBC gàcce ngalaama. ci kaw ba ci suuf ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp. mu am solo lool ni nga ko waxee léegi kon maanaam comme kenn ku nekk ñëpp bokku pas-pas ak bokku yéene moo sabab lii tey ba leen lu ci ne daal di ci xol kon di mm-hmm. nga ko waxee tey moom ngi dajale bagage yi pour ba mm-hmm. beneen ci base yi ci kàttanu yàlla gis nga soxna yi ñu ngi defar bagage yi ndeysaan jàmbaar la lool ah, Baye ngi fekk café gi mm-hmm. la ñuy fanaanoo nag mm-hmm. ci kanam tuuti ñu daal di lewetal ah, nag yi mm-hmm. waaw suñ ko lewatalee ba bu pare nag ah yi moom dañuy fanaane rek bu fay ndax dañoo waxoon ne tey la lañ nekk nii suba nag suñ xëyee ci kàttanu yàlla bernde yi lay commencé ci ndekki ya dinañ defar ay ndekki fajar macha allah ñu ndekki ba suur ah waa ñi nga xam ne ñoo yor affaire euh, wàcce kaamir yi mm-hmm. daal di ñëw mm-hmm. wàcce kaamir mm-hmm. ndax ren dafa am ay particularité yu ci am dafa am ñoo xam ne dañoo nekkoon nag ñun daaw fii yàlla dogal fekewuñu ñu leen di ñaanalaale jawriñ Ahmadou Dieye dañ koy rendre hommage soo xoolee suñu titet ñu sol ci ba ci ginnaaw rendre hommage jawriñ Ahmadou Dieye da cee bokk parce que daaw kel gi ci kel bi ñu doon majal moo ko yoroon daaw yàlla fekk na ko ko ren. bi ko ñaanal yàlla xaral ko àjjana. allahumma min yàlla bokk ña fa fekk ñam fa fekk ak ñu ko fa fekk ñëpp. képp koo xam ne nekkoon nga CRBC. su nekk toog aussi mooy sa contrat jeex wala nga dem feneen génnal la ñu ngi lay rendre hommage. Mm-hmm. parce que lii équipe la. surtout CRBC léegi chinois yi moomatuñ ko. ñu Sénégal yi ñoo ko moom. Mm-hmm. kon nag ñoo ngi sant ñëpp. Mm-hmm. di gërëm ñëpp. kontaan ci ñëpp ci taxawaay bi dëgg yàlla. léegi suba ba programme bi ñu wax nga ko léegi dina tàmbale ci li nga xamante ni mooy tàmbale ci ndékk yi. waaw jëm ci wàcce kaamil yi. waaw laax yeeg sarax yi. waaw fas def añ. waaw ba guddi gi daal. ba guddi gi suñ defee suñ defee suñ defee ndekki yow pare daal di wàcce kaamil yi. yi pare ñu ci añ yi. su pare du teewul nag am na benn kii boo xam ne moo fi protocole boo xam ne moo fi nekk. Mm-hmm. di dalal gan yi. Mm-hmm. ñu nekk ci xasaay ci suubaay bi parce que suñ moom jàng alxuraan ak kasaay moom mënut a noonu daal ak Baye Fall yeeg yëpp daal noonu lañ ko defee boo mm-hmm. aaju guddi mm-hmm. bo heure bi ñu bëgg mën a tas rek na tas mm-hmm. affaire yi moom dafa dañoo bëgg murite ku fi ñëw nekk ba suur naan ba mandi nekk ci jàmm xam ne ci safar gi daal lañ nekk moom waaw ay ay berndel la suñu Bamba moom danañu santal rek ko yàlla kon nag ñun suñ doole toll ci kàttan yàlla nañ ko def incha allah rabbi jàngum xasaayit bi moom ci ban waxtu lañ def lañ ko fas yéene tàmbali programme officiel bi laay programme officiel bi daal xam naa suñu añee ba pare mhm. ci lay commencé kuréel yi daa commencé toog boo mhm. mhm. fajar ba fajar rek incha allah kan mooy jàngkat bu mag bi nga xam ne moo ko fas yéene moo ko fas yéene sëñ bi Samb maa ngi fàttali sëñ Ibra Samb sëñ euh, Ibra Samb ndeysaan waaw sëñ Akasa. sëñ Akasa. waaw ndeysaan kooku it dafay barkeelu. ak mm. kuréel yu bëri. maanaam daal mboolem njabootu mboolem njabootu sëñ Tuubaa gi daal ñëpp danañ ci barkeelu koo xam ne dañ nga suñu baat yi to fu ba egg seegum. Mm. doon ab jànkatu xase nekk ci tund bi diggante Pikine ak Géejawaay. Mm. ak li ko wër. ñëwal nga barkeelu. incha allah parce que ñun suñu Bamba moo ñu ñor. Mm-hmm. waaw suñu Bamba rek moo ñu ñor leneen ñoruñu. waaw waaw jërëjëf jawriñ suñu xol seet na bu baax a baax ndax leeral nga ci li ëppoon solo ci li wax ci bés bi leeral nga ko laata ñu cee yegg donte nag tàmbali na ndax mm-hmm. kon ñu ñu yeggale ak sago lépp loo xam ne mébét ngeen ko ci bëgg ko ci tam sama borom def ci lu kawe seen ñu ko am bare bare bare bare jërëjëf amiin mbokk ñu ñëpp seen groupe de presse Salam Vision. Salam Vision. Mm-hmm. jàmm ju ànd ak ak gis-gis la. dina lu gën a leer. <laughs> alhamdulilah rabi oh, ci kaw ngeen jëm. incha allah macha allah yàlla nañu ko incha allah jërëjëf. six ak sotti ceeg def ci rek. daa mel ni sëñ la Lamine moom day day daw caméra bi quoi Lamine daa a génn caméra bi feeñ ci métier bi nag yow Lamine boo boo nëbbu doon tam di nga feeñ yow non doo wax mais feeñal rek. <laughs> wallaay naka jekk nii la mel nag naka jekk nii la mel waaw ak yéen ñu jël ci rek maa ngi woon doon def ak jëwriñ interview benn interview fële Thank you. kër mbaa mu génnum ni bis bi ni mel looloo teral